tël ay pexe yi tax ba bépp ma réew mën a jot ci paj mi nu mu gën a yombee doon lu am solo ci réew mi nu mu war a doxee jot ci paj moomee ab sañ-sañ la bi nga xam ne nii réew yu bare yu ci mel ni Sénégal dugal nañu ko ci seen ndeyu sart réew waaye seetlu bi mooy ci jëfin ga am na lu bare lu ci des ba léegi am na ay ay gox-goxaat yi nga xam ne ba léegi amu fa ay hôpital boo xam ne buñ fa demee neen faju beneen jafe-jafe bi mooy xaalis bi mooy maanaam li nga xam ne ñu ngi koy laaj si ordonnance si analyse walla si hospitalisation nekk na li nga xam ne bu amee wax dëgg yàlla si biir euh, famille yi dañuy am ay jafe-jafe yu mag a mag a mag mag. ci waxtu bi nga xam ne nii bërëb bu fajukaay yaa ngi gën a bëree rawatina nit ya fay liggéey défi bu gën a rëy mooy nan la ñuy def ba wàññi limu nit yi di feebar. bu ñu bëggee am euh, euh, lu ñuy ooy impact ñu fexe ba Sénégal yi bañ a feebar. lu ñu gën a mën a euh, sonj lu ñu mën a gën a def prévention mais maanaam waxtaan ba nga fexee sénégalais yi ba a wa bañ a feebar loolu dina am solo. naam réewum Sénégal jot naa dugal ay politique yu ci mel ni couverture maladie universelle ngir gën a mën a yombal paj mi ci biir réew mi waaye ay organisation yu société civile yu ci mel ni 3CAP santé suñu benn yoon ca gannaaw. Euh, organisation société civile dañu war taxawaa taxawal euh, askan wi. pour xool saytu ndax euh, système de santé bi mi ngi répondre seeni besoin mais également est-ce que ni mu koy jafe noonu la feebar ak dee bokk na ci li nga xam ne ni moo ñuy gën a tiital si suñu giiri dund naam amul benn fajkat bi nga xam ne ni mën na laa waatal ni mën na laa faj ba sa wér-gu-yaram dootul lompañati waaye ci jamono gi ñu tollu xel mënut a nangu nit faatu ndax dafa jotut ci jumtukaay yi koy may ngir mu faju